jërë ngeen jëf bokk yi ñoo ngi leen nuyuwaat di leen siyaaraat bu baax a baax tey ma dalal ci émission yi jàngat làmb ki nga xam te ne mooy Baye Djili namoon naa ko moo tamit xam naa ne namoon na ma ndax gën leen gisee weekend bi daa yàgg topp seen bëgg dimanche bi man day xaw a diis ci man lool Baye Djili nuyu naa la. Ousseyn maa ngi lay fay di nuyu képp kuy seetaan Wassare Lamb fépp a nekk ci àdduna bi di fekk fi nga toog ñu jox la suñu loxo di la baal bu baax di leen baal wax weekend bi dafa yàgg toog samedi ak dimanche bi dafa yàgg ci man lool lool xam nga dama lay namm damay bëgg ñuy gisee di waxtaan ci làmb ji dafay yàgg ci man daal. ah waaw loolu la demee nag dafay yàgg parce que xam naa ne ay par rapport ak euh, ban bi nga xam ne chaque jour lundi ba samedi dafay nekk kii yaa gën a xam mais xëy na noonu la ko yàlla tuddee mais maa la gën a nam namm boo ma rek namm naa la bu ko tey ñu war waxtaanee ci bilan wu Pikine Mbollo. Pikine Mbollo ku ne xam ne ne seen saison ren bi combat bariwul. mais combat yi dafa dafa dafa dafa xaw a dafa xaw a gàll góose ndax boo xoolee ñoom nga xamante ne waa Pikine Mbollo. Mm-hmm. def nañ quatre combats trois défaites benn match nul loolu noo koy jàngatee. Euh, dafa dafa dafa doon parcours boo xamante euh, dafa jaaxal képp koo xamante ni xam nga Pikine écurie Pikine Mbollo parce que Pikine ñu xamoon démb. ak Pikine mbooloo bi ñu xam tey ça fait deux. Mm-hmm. boo gisee ci yeneen écuries yi sax daa gaa lu mel ni Rock Énergie ñu ngi tudd keroog seen. Euh, palmarès seen victoire huit mm-hmm. défaites. Oh. palmarès boo xam ne def nañ ko école de lutte Pierre Balla tamit noonu mu doon. Euh, durant cinq mois yi nga xamante ni saison bi nag dafa gàtt. Mm-hmm. ndax saison làmb cinq mois yi ñu bëri ak euh, pandémie bi yu mel noonu moo waral saison bi gàtt mais ci biir gàtt boobu mu gàtt équipe bu mel ni Pikine Mbooloo ay jàmbaar la ñu ngi doon def ay parcours di di wane seen bopp mais bu ñu demee ba gis leen ci euh, cinq euh, quatre combats ñoom ñu am trois défaites ak benn match kon trois défaites benn match balaa ñu ñëw balaa ñu ñëw ci ci ci defet yi. Hmm. trois combats quatre combats gàttu ci équipe wu toll ni Pikine Mbooloo. waaw parce feebar bi moo tax. parce que hmm. Mbooloo ba amul benn leader boo xamante ni bëri na ci wala mbër mu mag ñu ngay gis ñu bëri ci nii ñëpp. jàpp naa ne ñi ci bëree même yaaw jàll moo ci doon mbër moo xamante ne xam nañ ko ci. ci làmb mu bëree euh, daanu moom yaaw jàll mais ñi ci des ñëpp euh, su ma juumul moo boobu moo nekk seen premier combat ñu yu ñu bëree. Mhm. tey làmb dafa am loo xamante ni noonu la baaxoo xale yi lépp lu ñu am ci àdduna bëri moo leen ko gënal. Mhm. parce boo nekkee mbër euh, doon mbër mu ndaw surtout mu soo bëree arène sa foo romb sa koñ ñu ne booy commencé fan sa club yi yeeg kañ ngay am combat kañ ngay am combat kañ ngay bëre kañ yow da dem ba mujj gi mbëri ndaw yi da nga leen di gis buntu kër promoteur yi ñu toog fa di xaar promoteur bi génn ngir wutal leen li nga xamante ne mooy combat mhm. mais parce que war ñoo xool lan moo waral Pikine mbooloo am euh, trois défaites ak benn match nul mhm. parce que Pikine mbooloo bi ñu xamoon euh, jamono yi ki nga xamante ne mooy tonnerre mu mhm. nekk fa Boy Sey nekk fa euh, Mame top 5 nekk fa Mame Balla no nekk fa ah ak yeneen ndaanaan ku ci mel ni Cobra 2. ak ku ci mel ni Cech. Mm, Cech waaw euh, ku ci mel ni Cech ñoom ñooñu ñëpp ñu nekkoon fa euh, yëkkati woon flambeau Pikine boolo mm-hmm. ñu dem ba mu jigéen jékki-jékki kii di Boy Sey euh, bàyyi na parce que dem na ba carrière làmbam commencé na tàggatee mais mu ngi bëri ay xale ñoo ngi koy ñaanal foofu nga xam te ne foofu la nekk di fa bàyyi waa yàlla na ko yàlla ubbil buntu wërsëg mm-hmm. mu yokk bu baax a baax moom booy Sey ah, léegi nag da ngay dem ba carrière làmbam euh, mu ngi commencé tagga bi mu dem dugg si ci làmb ñoo xam ni fi mu toll nii bëri naa xale yu war a bëreel ku bëri Diène Kaïré daan ko mm. bëri Siteu daan jaar ci port bu mag bi génn bàyyi bàyyi bëre mais bàyyi ji li ñu taxaw foofu noonu mu bëree combat yooyu daan daan ki nga xam te ne booy fi gën a ës daan dafa daan Siteu ñu waxati mu teg ci est-ce que moment boobu yoon la mu woon bàyyi làmb wala boog danga nga jàpp ne loolu mooy moom la gis loo nga xamante ni moo ko gënal moom waaw Zey nag euh, wolof daf na kuy tëdd ci lalam moo la gën a xam matt lalam. Mhm. parce que moom mi nga xamante ni tey champion la ci làmb bu demee ba sentir ni gisatul boppam. ci làmb wala yëg-yëg bi mu amoon bi muy dugg si ci làmb ndax gaa bi muy dugg si ci làmb tàgguma mais yëg-yëg bi mu amoon ba dugg si ci làmb bu gisaatee loolu ba ba mu jaral ko mu retiré wu ci làmb dañ koy ñaanal ci lépp lu mu nekk rek. Euh, mu gën làmb yàlla na ko ci yàlla suturaal dooleel ko ci ba lépp lu mu ci bëgg mu am ci lu kawe njortam parce que làmb nag pour man métier la boo xamante ni day. day continuer métier la boo ni fii yaa ngi doon xale yaa ngi koy fii yaa ngi am doole yaa ngi koy mën kattan ak wér yaa ngi kon boo demee ba sentir loolu ci sa bopp euh, boo génnee ci lépp loo nekk dañ lay ñaanal man damaa jàpp ni loolu moo xëy moom bu bàyyi parce que ku ci mel ni ceeb tamit noonu la mel. ceeb boo ko gisee avenir la woon ci làmb mhm. mais fi mu toll nii ñu ngi ñu ngi laaj mu xam bàyyi na wala bàyyiwul mais day def ay sorties yoo xamante ni day wane ni ba léegi mu ngi ci làmb waaye mbër nag boo nee mbër nga moom nga toog trois ans quatre ans cinq ans ba jëm ci dix ans yoo xamante ni bëriwoo euh, xëy na yow yaay jàpp individuel laaju loolu sax nag yow jàpp làmb rek mais xëy na mën nañ ne làmb bàyyi na waaw ñu loolu daal laa gis ni ci carrière Pikine booloo xëy na ta am ñu ñoo xamante ni ñii seetaan ñoo ñëpp xam-xam fuuf. Mhm. ñu gën a xam làmb fuuf. am na ci entraîneur yoo xamante ni ma nga fa ñoom ku ci mel ni Pierre Baba Diallo. Mhm. Euh, ak ñeneen ñoo xamante ne ay nattaangoom lañ ñu ànd ak xale yi di leen encadré xëy na moom it après incha allah rabbi di nga ko dugal gën a waxtaan ci équipe bi gën a wax lan ban yëg-yëg la ci am ak xale yi lan moo waral ñu def loolu euh, loolu daal laa amoon ci loo xamante ne mën naa la ko ñu gis ku mel ni tonnerre. booba ak léegi def na ay sorte yoo xamante ni perte na ko mais sorte bu mujj bi moo ki nga xamante ni mooy Tidiane fay gañe na ko gañe na ko ci ci ci ci combat boo xamante ni déwlu na ko déwlument bu baax ki nga xamante ni mooy tonnerre amoon na lancé boo xamante ni lancé bu baax la mais ñu dem ba ci biir gis ko mu xaw a ralentir tuuti ci diggante ma moo ma xool euh, moo moo Papa Sow moog Sa Thiès moog Gaga Mbossé yooyu noonu yëpp daal mu def ci ay sorties yoo xam te ne sorties yu baaxul la naka nga gisee loolu moom mi nga xamante ni nii tête de la bii Pikine mbooloo. Mm-hmm. waaw Tonnerre bi muy dugg ci làmb Ouzin euh, ku ko xool da xam ne champion la ci làmb Ouzin na bëri. Mm-hmm. Tonnerre am na doole Tonnerre bu sumee ko nga xam ne kii athlète la liggéey mu nekk ci ay dynamique victoire yu am solo nga jékki-jékki gisatuñu tonnerre. Mhm. li waral loolu mooy man ko mujjee gis vrai tonnerre mhm. bi. nga xamante ni moom moo nekkoon tonnerre bi bi bi kenn dul werante ci làmb diggante ak Yékini Junior bi ñu bëri woon stade. Oh, làmb ju métti jë. làmb ju métti jë nga xam ne. làmb boobu làmb yooyu lañ ci diggoon ku ci daan yaay dem bés si. noonu la demee Ousseyn. Euh, bis boobu ñu ngi doon wax naan bi tonnerre daanee. Yékini Junior ñu bari ñu ngi doon way naan ko Bercy boobu Tonnerre fay dem dafa am loo xamante ni dama ko gis ci Tonnerre Tonnerre bi mu bëree ak Yékini Junior ba daan mhm. dañoo jékki-jékki jëmmi Tonnerre gisatuñ ko ci làmb mhm. yaakaar naa ci diggante ma Yékini Junior la gëj amee ndam mu bëri bëreeg Yékini Junior jóge ci euh, bëreeg ki nga xam ne mooy Papa Sow Papa Sow daan ko xam nga ne Papa Sow da doon fournir Yékini Junior ndax Papa Sow ak Yékini Junior ay lonko lañu. Mm. dafa daan di euh, Yékini Junior na ko damay ñëw jël si revanche sama doomu ndey ndax maa ko woon nga daan ko. Mm. est-ce que est-ce que moment boobu moment boobu seen diggante. Ah, père maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. yaa ngi si direct en direct Wassare Lamb Baba Diallo. Mm. sant yàlla bu baax a baax tey ñu doon waxtaanee bilan Pikine Mbooloo. ndax ku ne xam na ne pikin Mbooloo ren def na 4 komba 3 victoires trois défaites benn match nul. Hmm. waaw ñu gis ne euh, palmarès bu mel noonu musu fee am su ma juumul. ñu bëggoon xam palmarès bu mel noonu ñu ñu su ma juumul musu fee am. ñu bëggoon hmm. xam ñu bëggoon xam naka naka naka la palmarès demee est-ce que ak naka la combat yi demee daal ba ba ba palmarès bi demee noonu. waaw comme ni ma la ko waxee xam nga euh, saison bi day doog doon doog a commencé dafa nekk ci première combat yi rek. Mm-hmm. Euh, combat yi ay xale jël ko xale yoo xam ne mosu ñoo bëre. Mm-hmm. ni ma la ko waxee rek ne xale yi léegi dañuy jënd combat. Mm-hmm. dañuy dem seen nijaay wala seen xarit mu may leen combat laa jox leen ay ay ay ticket. bon ñuy jaay ticket yi dem bëri ji. ñoom ñooy dem di jënd seen i combat xam nga xale boo xam ne mosul bëri. dëgg la ñëw rek na la am naa combat ñoom xale yi lañuy woo xale yi ñëw na la am naa combat boobu ci instant boobu xale bi bëgg na bëri ay booy fantam ni topp nañ ko xam nga ne léegi affaire affaire koñ la dëgg la léegi boo dee xale bi de bëri ji mais day bëri ji rek mais day fekk da ngay ñëw ba ci la sax di nga koy laaj kan ngay bëri du ko xam du xam kan lay bëri ci yàlla yóbbu na euh, as mbaay boobu booy as mbaay boobu bëri woon te daaru mhm. euh, keroog bi ma ko yóbbu ci làmb ji def bi mu ñëwee daf ko mais ki mu koy ki mu koy ki mu koy bëreel bi mu ko bi mu ko gisee muy ànd bàyyi def na ma père su ma xamoon ne kii laay bëreel du ma moom parce que du ma moom mi. moo ñu ne ma père su ma xamoon ne kii laay bëreel du ma bëree moom ndax du ma moromam parce que booy ba xam naa moom ak ànd bàyyi foofu mais biñ leen boole mu loolu erreur yu mel noonu moo indi moo indi yu mel nii te làmb yi léegi dafa yàqu. te eh, daan ñëw ci saal yi seet xale yi mën a bëree mm. waxtaan ak manager bi. ministère bi waxtaan ak entraîneur entraîneur bi jox ko mbër mbër mi dem bëri ji waaye léegi loolu amatul léegi mbër mi booy bi mooy dem du doon mbër sax parce que booy ñu jox ko combat mu la jël ay ay bant kala moom bu bëree mu daanoo ñibbi xeex bu daanoo ñibbi xeex bu daanoo ñibbi xeex loolu moo indi problème ñu am sax yàlla làmb yi sax léegi loolu jaadu na ci équipe bu toll ni Pikine mbooloo ñuy ñëw di xale xale yi ñëw jaaduwul jaaduwul làmb moo yàqu léegi li ma la wax mhm. làmb moo yàqu que da nga daan yor ay xale di leen bëriloo premier combat deuxième combat troisième combat mbër mi dem ba grand combat. yooyu yëpp ay ay test la woon. mais léegi da ngay gis mbër moo xam ne day génn ci année yi bëri ci année bi dem grand combat. te promo promoteurs yi léegi ñoom ñooy seet booy yi leen neex jox leen ñu bëri te booy yi ñu pare mais xam nga ne neexul nit ki dem wuti combat am lijjanti jënd combat am ñëw na la paire damaa bëgg a bëree nga ne ko loo bëree. dëgg la. yaa yàqu yàqu yàqu mais boo xoolee sax booy bëri ci làmb yëpp dañuy doonante ba mu te ba ba kenn daanu rek mais technique du ma génn. ok waaw képp ku daan seetaan làmb ngir bëri ci làmb ngir xam làmb ngir technique làmb daanaka léegi làmb soob na la. bàyyi ma bàyyi bàyyi ji li mu ay question yu mu la laaj ci làmb. bàyyi ji. Pierre bu baax a baax a baax. maa ngi lay fay maa ngi lay fay. dafa am benn wax bu ma jàpp ci sa biir wax mu mel ni danga ne xale yi euh, balaa ñuy bëre dañuy fay. wala waxu loolu. waaw waaw parce que fay gi ma la wax mooy. Hmm. promoteur bi dalay dalay dalay fay cent mille franc CNG. Hmm. cent mille franc yi dalay jox bloc. nga dem yow avant combat bi taxaw nga jaay bloc bi. verse ko xaalis. Hmm. te biir bloc bi dalay wax jëlal sa cinquante mille. soo jëlee sa cinquante mille jox ko cinquante mille. léegi moom sa cinquante mille boobu. cinquante mille bi ko jox moom la yóbbu CNG wala mu téye ko yow cinquante mille bi nga jaay CNG jox la ko de yow yaa ko téye ci cent jox promoteur bi jox promoteur bi cinquante mille francs. Hmm. loolu léegi moom loolu la booy yu bëree. waaw mais père ma yaakaar CNG bi euh, waxtaanoon nañ ci ba ni amatul benn mbër boo xamante ni mën nañ la may euh, accord benn promoteur di la jox billet. pour nga koy jaay. mais mais mais mais euh, CNG dalay dalay sotal mais du la du la xeexal. Hmm. tey su fekkoon sama mbër da koo dem daf koo dem tey ma dem boole kooku waa CNG ay di bëri dara. Hmm. lamb yëpp dañuy dal sama kaw wala wala samay booy du ñu bëre parce que ko Baba Diallo bu jox mën a combat day dem CNG. Mm. te booy dañuy yoxu suuf rek dem jël combat booy ñooy bëgg a bëre mais booy bi am booy amuñu dara ci bëre. Mm. cent mille francs ñu la cinquante mille francs nga jël car rapide def regroupement dem ci ay sëriñ ñu ñaar def lépp loolu booy ñoom ñooy sonn ci lamb bi mais amuñu dara ci lamb bi bëgg a bëre rek. Mm. léegi ëllëgul lamb ak xale yi kon lan ëllëgu làmb kay mooy làmb gi dee ñu ngi naan làmb sponsor bi moo ko rey waaye làmb yi écrits yi gën nañoo rey làmb yi ak ak ak yi. Mm-hmm. parce que promoteurs yi dugguñu ci xaalis dugguñu ci làmb ji pour ñëw jàppale làmb ñoo ñëw dugguñu ci làmb ji pour business. Mm-hmm. business làmb ji mooy fekk xale boo xamee ne yaakaar nga ne am na ay fan dëkk la nga jël ay jigéen jox ko mu def jaay ñëw wegg la nga def bëri loolu xamoo ndax mën na bari wala mën a bëri te yoon nekkul ci loolu. Mm-hmm. ñooñu dañuy dañuy dundee ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. ñooy jërëjëf kontaan comme ni ma ko waxee woon rek. Hmm. bu CNG. Hmm. et di leen bu xale yi. balaa ngaa. ñëw ci problème bu CNG. Cobra ñu gëj koo gis yéen ko téye bëre wala boog. adversaire yee koy daw wala moom moo moom moo bëggul ba moment bi Cobra adversaire yee ñoo koy daw booy ñeme wuñu Cobra hmm. yow xam nga Cobra keneen xam na Cobra hmm. Cobra hmm. xam na ne ko Cobra kenn mënu koo génne làmb ji mais mbëri dañuy daw làmb nekk seet na ma dama ma jox baax na koo ma jox ma bëri may jox ma dem dox ba jógee combat ba desul lu jël avance ñu ñëw na mbër ma mbër ma bàyyi neen ngaa yi tere na ko wala encadrement bañ nañu foofu lay mujj loolu ak ragal la mais xam ne Cobra benn booy ëpp ko ci porteur ko bëri kenn ëpp ko ba gën koo hmm. kon lan moo tax a mën a bàyyi Cobra ci benn defet boo xam ne koo xam ne wayaa wayaa la hmm. lu yàlla dogal da koy tamit Mame tamit ñu gisoon combat moo euh, mbay guy gi daanaka taxawoon nañ jot dañoo def signature boobaa léegi déggaatuguñ dara combat bi dafa yàqu wala combat bi euh, moom mbay guy gi waaw Assane Ndiaye ko doon dox a a kana gu a ndox léegi mais fi mu toll daanaka man déggatuma ci dara doxoon na ci ay ay tànk am na lu mu ci am na lu mu ci waxoon ministère bi ñoom ministère bi ñu ngi ci doon dox mais ba léegi dara avancé wu ci ak yéegi yàlla dogal it lii ñëw xëy na mbas mi ñëw moo tax affaire bi demee nii làmb hmm. baax na ñoo ngi lay jaajëfal kontaan nañ ci bu baax a baax hmm, jërëjëf jërëjëf mais ñoom jéggal ma rek ci ci maa ngi kontaan na. père père. dogguma la dafa am loo bëggoon wax ci seen CNG bi mais dafa mel ni ñu ngi yaa ngi koy bëgg a fàtte. waaw. ci CNG bi. waaw li nga doon wax ci CNG bi léegi da nga nekk. waaw CNG bi dana dama xam ne comme ñëpp ñu ngi wax artiste di wax lépp waaye bëri kenn tudd leen te bëri danoo danoo danoo foyam seen licence. renouveler seen licence mm-hmm. ministères yi renouveler seen licence mm-hmm. promoteurs yi renouveler seen licence mm-hmm. te mbas mi ñëw na dëkk bi métti na kon dañu laaj ndimbal ndimbale nag FDA war naa a fexe ba booy yi xam ne daaw renouvelé woon seen licence mu mint ne ren euh, euh, seen licence yooyu ñu renouvelé woon mu mën a bëri bi di ñëw mu jàppale leen ndax dëkk bi métti na te xam nga ni mu demee te ñëpp am na ñu ndimbal sax ñoom Mm. làmb làmb métti na ko waaw. métti na loolu métti na loolu mais yàlla ah. baax na père ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax. ci jàppale bi ngay jàppale xale yi te amoo ci dara wax dëgg. lépp lu bëgg làmb jëm ci kanam. lépp lu du bëgg xale yi teral seen ñaari waajur. ñu lay ñaan yàlla na la yàlla defal gudd fan ak wér. ba lépp loo bëgg yàlla yàlla na yàlla jàppale. yàlla moo ñu natt ci làmb rek. dëgg la ma leen gërëm leen li gis nga li Baba Diallo waxe mm. ni mu joxee conseil ci xale yi nga xamante ne ñoo nekk ci écurie ñi nga xamante ni nii maanaam am nañ ci defet ñëpp ay mbër yoo xamante ne mosuñoo am combat bi maanaam mooy seen premier combat. Mm. noo gisee loolu xale yi bëgg nañoo bëre ba tax na dañuy dem sax ba di fay promoteur yi pour mën a am journée bu baax boo xoolee xaw na xaw na xaw na xaw na difficile daal ci mbëru ndaw yi. Mm. ndax bëgg a ak bëgg a bëre. Mm. Ousseyn loolu laa ci njëkk a gën a gën a jàpp mu doon loo xamante ni dama koy métti loolu parce que xale yi koo ci laaj rek mu ne làmb li mu ci dugg ngir teral sumay ñaari waajur mhm. te yaakaar naa promoteur bi nga xamante ni euh, yow yaa toog ba mu neex la nga ñëw dugg si ci làmb ne man promoteur laa damay tëgg làmb yow dagg sa licence moo xam nga daggee ko trois cent mille ba pare ñëw ci làmb euh, bëgg war a dundal xale yi war a dundal làmb mais alors que léegi da ngay mujjee dundee xale yi di dundal làmb ñaaw parce que boo demee ba bëgg a tëgg benn xale ñëw dagg licence ñëw ci làmb indi fekk fa mbër moo xamante ni dafa bëgg a bëri nga jox ko adversaire jox ko trois blocs wala ñaari blocs yoo xamante ne bloc bu nekk mu ngi jar cent cinquante mille euh, ñaari blocs yi bu ko jaayee day doon trois cent mille léegi xale bi nga fay ko cent mille francs pour mu bëri léegi cent mille francs yooyu ci trois blocs yi mu jaay indi la trois cent mille nga génnee cent mille deux cent mille yow promoteur bi nga def ko sa poche léegi cinquante mille yi koy jox avance yeneen cinquante mille yi nga bàyyi ko CNG. doon na loo xamante ni du luy defar làmb pour man ku ci mhm. nekk rek li nga mën da ngay def loolu Ouzin boobu yoree njëgu ginaar nga tëgg njëgu ginaar ki yor njëgu picc tëgg njëgu picc ñu bàyyi li ñu xamante ni noonu la ñuy defalee xale yi parce que rafetul te ñaaw na ci làmb nga ne promoteur nga euh, bëgg a ay journée bëgg am ci làmb dara ba pare te xale yi da leen di. exploité da nga exploité dafay doon loo xamante Baba Diallo li mu wax ni métti na ko loolu mais amul fu mu ko mën a jooytoo fu mhm. dul CNG bi CNG bi nag euh, am na lu ñu jotoon wax nee nañ amatul benn promoteur bu nga xamante ne am na droit jox ay mbër billet ndax boo leen joxee billet ñu xam ko dinañ nangu sa licence mais mbër dañuy dem ba mu gi xale yi dañuy bëgg a bëre aussi. est que du mbër yi ñooy forcer promoteurs yi pour ñu jox leen avance ñu jox leen ko ay ticket tamit. làmb làmb du loolu parce que làmb ñu waxante dëgg mais promoteur yi ñu neewoon daaw làmb mm-hmm. ak promoteur yi ne làmb rek mun nga leen a compte euh, sànni ma benn promoteur xeer mais boo xoolee promoteur yi yëkkati liquidité jox mbër avance ci làmb boo ko tuddee boo nee quatre promoteurs doo tudd cinq parce que am na ci ñoo xamante ni bu ñu ñëwee ñaata yoon ngay gis Ousseyn mbër mu jékki-jékki ñu ne contrat diw ak diw sax euh, signé nañ ko jékki-jékki gis mbër moomu génn ci presse bi ne jotuma avance. bari cent cinquante mille lañ ma jot a jox. bari na ci mbër moo xamante ne Baboy euh, numéro deux Balla Beye bi muy bëreeg Baye Mandione lan lañ jox Baye Mandione avance xar nee xar boo xamante ne mu ngi jël deux cent cinquante mille xaw ma deux cent mille moom lañ ko jox avance pour mu bëreeg Baboy dafay am yoo xamante ne du luy defar làmb parce que mhm. làmb lépp loo gis rek euh, coow leeg euh, ci coow lay commencé ci coow lay jeexee mais war nañoo xoolaat bu baax a baax a baax. yan jéego moo mën a defar làmb mu doon loo xamante ne dañ koy teg ci niveau boo xamante niveau bu professionnalisme lay doon mbër yi gis ci seen bopp entraîneur yi gis ci seen bopp CNG yi gis seen bopp surtout ñi nga xamante ne ay supporters lañ di gunge làmb mbër sax bu ñëwee gis seen bopp ci làmb ji Ousseyn loolu daal laa amoon loo xamante ni bëggoon naa ko dégg képp koo xamante ni da ngay dundee làmb wala da koy dundal nga bàyyi ci xel bu baax a baax a baax Ousseyn. jërë nga jëf ki nga xamante ni day dundee làmb bañ koo day dundal làmb bañ koo dundee. ñu ñëw ci ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñi nekk euh, Pikine mbooloo ku ci mel ni Cobra dégg nga li mu wax. Mm. mbëri bu ñu jugee naan dañ ma ragal dañ maa ragal nee na Cobra ku ñëw nee na promoteur bi ku ku ñu andil Cobra baax na mais ba tey Cobra combat mënu taxaw ndax mbër mu seeti bu ci dem ba ñëw ne samay mbokk wala boo combat bi arrangé ma naka nga gisee loolu bëri dañoo ragal wala boog dañuy tànn yoon bu nooy. wala lan la. Mm-hmm. wax na sax ba sànni euh, xeer na ko. Euh, mbëru wayaa wayaa la. Mm. waaye Gora Sock du mbëru wayaa wayaa parce que mbër moo xamante ni euh, tout le temps yaa ngi compétir ci lamb simple yi. Mm. bëre dóor bi yaa ngi ciy def jéego euh, mu daan mbër moo xamante ni Pikine am nañ ci moom yaakaar Cobra boo ko gisee nga xam ni jëmmi. loolu laajte ana mbër mi. yor na jëmmi ji yor na dayo gi yor na bëre bi ci moom mais dafa bëre koo xamante ni keroog ñaari mbër bu ñuy bëre ñaari ndamay dugg waaye benn yi génn keroog Gora moo am ndam bu amul benn werante ci kaw Cobra na ko félicité xam ni euh, Gora Sock doomam la Cobra doomam la mais làmb moo demee noonu léegi nag Gora Sock daan na fi Cobra mu ngi ci leneen Cobra moom it nee nañ adversaire dafa am problème mu adversaire parce que mbër yi dañ koy daw wala mbër yi dafa am ñoo xamante ni. Euh, mais ak ni làmb toll est-ce que Cobra war naa mën a am problème adversaire ak ni làmb toll. si si si parce que mun naa am problème adversaire ndax Ouzin fi mu toll nii làmb ji ku ci nekk. Euh, da ngay am lu tax ngay jël sa morom. Mhm. Cobra fi mu toll nii munoo ma su ma la waxoon limal ma ko Cobra ñaata mbër ñooy ay adversaire am euh, pour nga lim ko day doon lu lu lu pro day doon problème ko parce que Cobra yow fi mu toll nii ñan nga jàpp ni loolu ñooñ la mun a laale. boo demee Fass génne ma Baara njaay Cobra Baara Ndiaye. neex na neex la si waaw soo ñëwee fi nga xamante ni nii mooy fan sax boo duggee géejuwaay. Mhm. Marley am na combat. Mhm. moom maar la combat bu neexoon la. Mm. Euh, boo ñëwee ay adversaire am daal bu ma ko dee lim dafa mel ni fi lañuy fanaan. moo tax moo tax xam nga mbër bu demee bañ naan ko kan nga koy tudd adversaire nga ni boo boo tuddee nga tudd Baara njaay écurie yi fi nekk yëpp ci Sénégal. Mm-hmm. mënatu fa am ay adversaire moo lay wan ne làmb ji am na fu mu toll. Mm-hmm. parce que fi mu toll nii am na ci ñoo xamante ne certes mën nañoo génn ci làmb waaye mën nañoo bare moom. parce que Cobra ak Alioune Seye 2 yaakaar naa ni bokkuñu écrit kii mu ngi nekk Guédiawaye kii mu ngi nekk Pikine gis nga pourtant lamb ju neex la mhm. ñoom ñaar war nañoo mën a daje laale Cobra pourquoi pas moom ak ñaq jariñu mën nañoo mën a oh. bare bëre làmb ju neex la euh, pour quoi Tapha Leer Tapha Tapha Leer Tapha Leer Tapha Leer Cobra Tapha Leer combat la boo xamante ni ak ku Tapha bi euh, Ndiaye Tine waaw Ndiaye Tine Cobra Cobra pourquoi pas ku ci mel ni euh, Modou Anta bu wala ambulance bu Thiès. moo ko ambulance daax sax nag ay combat yu neex a neex a neex la moo lay wan ni des fois mbër yi moom mbëru làmb yi des fois am na ci ñoo xamante ni euh, dañuy taamu adversaire wala dañuy xool mais bu ñu bëggee bëri. Hmm. Hmm. ku ci nekk boo bëggee bëri di nga ëpp sa loxo ba promoteur mun laa tëgg ku ci nekk boo bëggee bëri di nga am ay adversaire yoo xamante ni foo leen fëggee ñu koy parce que wolof daf ne ku bëgg ku ku la wéttali ak ku bëgg fu leen fu mu fanaan ubbal bunt bi du leen boole te ñoom ñëpp koo ci laaj mu ne la bëree laa kon war nañoo mën a jëlante seen biir bëre seen biir euh, làmb rek moo ci gagné kenn du ci perte Cobra du perte adversaire du perte pour man daal loolu mooy loo xamante ne euh, lu ñu war a mën a xoolaat la ci làmb lu ñu war a mën a defaraat la xoolaat la lu ñu war a mën a defaraat la bàyyi ji lii kontaan naa ci yow. Hmm. ñu lay wax ne temps bi xoj nañu. Hmm. nga tàggatoo ñu tëj. waaw di di la jaajëfal bu baax a baax a baax ci invitation bi di wax ñëpp ñuy seetaan du dañoo am xam-xam moo tax ñu toog fii déedéet. yéen ñi ñuy seetaan yéen ñoo xam-xam foofu ndax des fois ñu wax juum ndax nit matul yàlla suñu borom kese moom mat des fois ñu wax juum ngeen nangul ñu loolu rectifier ñu tegaat ñu ci yoon loolu rek la ñuy jariñante ndax àdduna ku ci nekk rek mën naa jariñ sa moom ñu leen jaajëfal bu baax a baax la gis nañ bëgg bi nga xamante ni bëgg ngeen ko wasaare gis nañ bëgg bi ngeen di bëgg wasaare ñoo ngi gis commentaire yi mbokk yi ñoo ngi gis waxtaan bu sell appel yi ngeen ñuy woo ñuy wuyu fépp fu waay nekk ci réew mi ak bitim réew euh, ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a di jaajëfal Ousseyn bu baax a baax ci invitation bi di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni moo du dàqali ko balaa ngaa tàggatoo tey noo gis ni mu la dalalee teg li ci sées nga toog. waaw tey ah? taxawaay bi ay <laughs> fo. Euh, tey bu la neexee nga taxaw suba bu la neexee nii dafa mel moo gën a jaar <laughs> mais est-ce que doo wut loo ci suuf sax. boo tax day xaw ah. naa ne toog rek parce toog bi daal. ah sées de dama koy luyee moom ndax li ma ko jëndee daa seer. <laughs> may jaajëfal bu baax a baax a baax encore une fois kàddu kàggu moom mi nga xamante ni macha allah xale bi lu mu cadrewul baaxul euh, di jaajëfal aadama mi nga xamante ni moom la son ak lumière bi di ko jaajëfal bu a baax a baax di jaajëfal képp koo xamante ni da ngay bëggee Wassare Lamb moo xam bëggee woo foo nekk rek ñu ngi lay ñaanal jàmm te sàkku ci yéen di la jaajëfalaat bu baax a baax a baax di kontaan ci yow di leen wax ne nii lañ koy defalee chaque jour. tey nii la woon lii lañ andi woon ci jàngat làmb Pikine mbooloo ah Père Baba ñoo ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant kontaan nañ ci yéen bu baax a baax di leen wax ne cote leen foofu ngeen di bës cloche bu bi di abonné kàggu kontaan naa ci bu baax a baax aadama keneen ki moom dama koo zappe jëf